jàppandul su ma yeboo di la ñaanal ni yaay ñàkk rek mbokki xaritu internet yu sans limite maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi leen di jaar tey nag ñu toogaat beneen toog bu xaw a spécial fekk benn soxna bi nga xam ne mi ngi dëkk fii ci Wakam yàlla daal di koy tab benn feebar te feebar boobu itam gannaaw bi ñu xoolee fii euh, Ndakaaru wala Sénégal mu xaw a méttee faj ñu war ko génne yóbbu ko euh, nettali ci gémmiñu borom lay dàqee xam naa yéen itam boo leen euh, xoolee et puis ñi ngi lu tax mënuñu wane kanam gi itam euh, c'est dans le cadre pour gën a mën a garder identité am ndax bu feebaree itam du yoon ñu war ko exposé ñëpp di ko gis ba tax na ñu toog moom rek war a waxtaan ci lu bëree bëri soxna si maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay sëñ yaa ngi am jàmm. Euh, xam naa ni du euh, dina xaw a metti ñu xaw a waxtaan waaye euh, feebar bi lan la exactement ak ban moment nga sentir ne ñëw na ci yow. feebar bi. feebar bi de maa ngi ko yëg bi ma commencé yëg métit bi février deux mille deux huit la hmm. woon man daal damaa toog a toog yëg sama put bi. Hmm. mënatul jàllale di metti ma dem ñu ki kii hôpital benn hôpital ñoom ñu yebal ma ñu ne ma naa def def analyse yeeg ay fibroscopie léegi ñooñu bi ñu defee ba pare ñu def anapat ñu yónnee ko mu dem France mu ñëw ci lañu ñu gisee ne ñu ne cancer de l'œsophage la cancer de l'œsophage waaw d'accord léegi cancer de l'œsophage boobu nag ñu bi lañ si lañ tàmbalee nag di may defal ay chimiothérapie ci hôpital yi Dantec laa njëkkee waaw mm-hmm. léegi teg ñoom def bi ñu defee seen chimio ba pare mm-hmm. ñu yónnee ma waa dalal jàmm mm-hmm. dalal jàmm tamit ñu parewaat ci man delloowaat ma am maa ngi waat Dantec léegi Mm-hmm. waaye ba léegi man daa gisuguma ci avancement bi mm-hmm. ndax ci biir faju bi dama ci gisaat beneen put bi rek laa doon faj mm-hmm. ma toogaat ba gisaat muy génne ci ci ci côté loos bi li waa mooy li ngeen di gis noonu te man na de damaa yaakaar ne buy faj pour mu wër la waaye ngay faj di gisaat leneen dalul xel wax dëgg fa yàlla mais bu ñu nee cancer euh, de l'œsophage euh, foofu mooy fi ngay euh, lekk yi di jaar donc naka ngay lekke sama lekk bu metti lekk kay mënuma naan daal lay lu oyof laa mun a naan depuis ba mu la dalee ba léegi ci naan rek ngay ci lu oyof yenn saay nag mu xaw ma may tuuti waaye su ma su ma su ma waree lekk ceeb bu dee ceeb mun naa toog toog huit heures ba à peu près cinq heures de temps ba six heures de temps may ma nekk ci benn kuddu pour pour mun ko jàllale ndax foofu mu nekk ndox pour mu mun a dem xam lekk boobu metti na torop torop donc fii euh, biñ lay poursuivre euh, di faj lan lañ la wax mënuñu ko faj walla seen plateau médical dafa euh, matul lan la exactement. ñoom daal simio radiothérapie donc lañ ma ci wax ndax nee nañ cancer de l'œsophage moom opéré ko moom ñoom wax dëgg mu mënuñu ko. fii Sénégal. ah si liñ ma wax. Mhm. dañ ma ne du lu ñuy opéré du lu ñuy opérer fii uh-huh. waaw ci liñ ma wax d'accord mais ci bitim réew laajte woo ba ñu wax la ba xam mën nañ ko wala ñaata lañ koy defee wala dem beeg yépp naka lay demee exactement ci bitim réew uh-huh. ah yaakaar naa ne ñoom war nañ ko war a mën uh-huh. waaw sama yaakaar daal foofu la tegu instant bi hmm, bi nga njëkkee def sa recherche ñu wax la ñaata la somme bi yëpp pour dem beeg bi yéeg faju beeg ñaata ci ñaata la tolloon ñoom daal liñ ma jot a wax nañ ma fi si ay vingt millions yi. vingt millions. waaw bëri na lool. bëri na kay. lool. te xaw ma fu ma ko mën a jëlee. Mhm. wax dëgg fa yàlla. Mhm. d'accord famille bi naka la deme je n'ose pas demander ba xam euh, c'est stable d'une manière financière euh, est-ce que demee na noonu. ah famille bi ah, ñu ngi suturaalu de. waaye xam nga ne mënuñu mënuñu mënuñu loolu amuñu ko sax bu boobaa kay ma toog fii sax moom ñoom amuñu luñ si mën a def wax dëgg fa yàlla moom ma tax a jóg moom moo ma tax a def li lii est que dem nga ci maaman yi ñu ñi fajoo fajum olof maaman yi wax dëgg fa yàlla man comme que sama génn ba munuwul munul lu munuma dox lu bëri waa ci dem ay bitig ba yooyu sax wax dafa xaw a jafe si man maama nii de ñi ma si jot a gis ay téléphone rek laay wax ak ñoom waaw waaye dañ ma ne ay rab xam nga kenn xamul daal waaye jotuma dem tax toog ak ñoom wax ak ñoom nii téléphone rek laay dégganteeg ñoom waaw am nga borom kër man waaw mhm. am naa borom kër mhm. yàlla may na leen njaboot benn doom lañu amagum. Mhm. waaw. naka la dund bi demee fii ak euh, quartier bi itam bu parce que parfois feebar yi buy toll ñu bëri du ñu xam ni mu demee mais dafa am beneen lu ñu lay xoolee. dund bi ah man de wax dëgg du may génn bëggatuma génn sax. Mhm. depuis ba ma lii jotee ba tey. Mhm. sama génn sax mënatuma ko mënatuma dem fenn à part dem su ma amee rendez-vous hôpital lay def. damay muuru moo waree génn dem boutique ba sax damay muuru ndax lii neexul a xool neexul a gis wax dëgg fa yàlla ci man bokk waaw def na benn complex boo xam ne am naa ko waaw yaa ngi doon liggéey avant lii waaw maa ngi doon liggéey waaye liggéeyatuma ndax munatuma ku munuma boo munul lekk doo mun a toog bay liggéey. absolument. léegi nag lekk bi nan lay demee da ngay dem hôpital parfois ñu am yenn infusion ñu la defar nu mu demee léegi. Euh, chimiothérapie bi de ay médicament la yu seer sax. Mhm. te metti ndax def na ba ma ko tàmbalee daaw ba ren. Mhm. maa ngi si chimio. Mhm. dafa gum naa sept cure. waaw te cure bu nekk xaalis bu bari lay laaj. ordonnance yi day dem ba cent cinquante mille ci benn cure rek wax dëgg fa yàlla dañuy dañuy dangay dem ñu ñu jël perfusion yi di da ngay am ay quatre perfusion wala ay six perfusion yoo xam ne dañ la koy sol ci sa yaram loolu yëpp pour rey rey kii cellules yi nga xam ne ñooy ñoo ñoo ñoo def cancer bi daal hmm. loolu moo tax ñu ne defal simio bi waaye man daal damaa seetlu ne bu ma defee chimio bi ba ñëpp si si effet secondaire yi dañ may solo ba pare damay remarqué sama sama ganglion bi wax dëgg fa yàlla day yokk day metti du ma nelaw guddi di may teree nelaw bopp bi day metti yëpp la def def insomnie sax dama koy am guddi sama nelaw day jafe moo tax daal ma bëggoon ku ñu ma jàppale ma ku a faj ñu fajal ma faj faju daal mm-hmm. ba wër mm-hmm. mun a toppatoo sama njaboot sama doom sama jëkkër mënalu ma leen dara instant bi d'accord di dénn ko déggandoo gor gu ne mënut sax taxaw ne jàppale leen ma waaye itam dina am fu muy toll lu mel ni valeur vingt million euh, nga nar ko utiliser génn dem bitim réew pour faju ak moment bi ñu toll moom amu ko donc c'est pour cela ñun itam ñu def lii ñu def pour ñaan ndimbal rek ñun itam yéen bonne volonté yi nga xam ne yéen a ngi koy seetaan xam naa du ñàkk dinañ am benn numéro bu ñuy bàyyi foofu ci en bas de l'écran ngeen woo ko wala ku ci am lenn loo koy envoyé ku ñu mën a jàppale itam ñu jël luñ ko mën a évacuer le plus rapidement possible parce que affaire mi ngi gën a aggravé wu li tax mënuñu wane kanam gi loolu itam ci la bokk euh, ñi leb tour bi itam nag duñu ko mën a joxe waaye xam naa ni euh, numéro baa ngi noonu daal en képp ko am loo koy envoyé wala boo ko bëggee ñëw ba fii mën nga ñëw wakkaam Cité Comico boo woowee di nga dinañ la wan fi mu nekk ñu ci mënte jàpp daal ñu jàpp ko ci ndax metti na metti na ça fait mal ci moment bi mu toll ni eh, yoru tout tànk mu doon gone eh, bëgg mu mu yaakaar ci moom c'est vraiment difficile sa jëkkër moom mi ngi liggéey. sama jëkkër ma si gën a metti mooy day rek dama yeewu sama doom bi mu ne ma. mu xool ma xool ma mu ne ma yaay lii est-ce dina deñ kañ lay deñ muy wax bul bi muy gis chaque jour ma ne ko man kay xaw ma sax yi kañ lay deñ da toog di gis sa doom muy muy wax yéen nii wala nga feebar ko sonn doo mun si moom dara xale bi dafa taq yaay ak papa man tey su ma demee nan lay def man naa leen fee bàyyi si xale bu ndaw loolu moom moo ma gën a jeexal sama xol bi si feebar bi nga tax moom mun a def wër loolu rek laa bëgg wër rek laa bëgg du leneen soxlawuma leneen ndimbal wër pour ma wër ndax li ma jot faju fii yëpp sama jëkkër def na pexe bu ne pexe bu ne pour ma wër moom day toog fii du lekk ndax mënul toog gis jabaram jabar muy lekk jabaram du lekk te boo lekkul doo dund ñëpp xam nañ ne boo toogee suba ba ngoon lekkoo gis nañ li ñuy nu muy def man nag léegi mu mot ak man at ñaari at sax lay wax léegi ñaari at may góor góorgóorlu ci lekk métti na métti na trop vraiment man moom métti na ba fu métti yem yàlla rekk moo ma yor instant bi yàlla rekk voilà man daal loolu laa bëggoon ndimbal bu gaaw rekk ñu sauver ma bëgguma bàyyi doom bu ndaw fii quatre ans dong la am soxla na yaayam <laughs> te bëggu naa it continuer dund ak moom bu mu màgg mu am ay raq wax dëgg fa yàlla